ñu ngi leen nuyu baax a baax a baax di leen siyaara masàllaa seen émission waxtaanee xam-xam seen émission jotaayu xam-xam tey ki leen koy présenté Serigne Modou Dieng Dieng Sala euh, masàllaa tey ñu am gan gu mag ñu koy wax Serigne Mbacké euh, Asrar euh, Serigne Abdou Lahad bu ko defee da ngeen nuyu mbokki antenne rek bu ko defee ñu daal di jublu ci waxtaan Serigne Abdou Lahad waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Modou Dieng ñu ngi lay nuyu baax di nuyu sa àndandoo yeeg ngay seqal liggéey bi yëpp di nuyu ñi ñu àndal ci biir Serigne Dame Mbacké di leen siyaara bu baax di sant ak gërëm mboolem ñi nga xam ne bokk nañ wàll gii ñu liggéey te mooy lasaraar jàpp jàppale ñu ci bu baax a baax bañ agsi fii di leen beral nuyoo bu baax a baax bisimilah sëñ Modou oh, jërëjëf sëriñ Abdou Lahat oh, macha allah ci nuyoo ba am am solo boobu noonu nga leen kàddu gi sëñ Modou ñu ci caméra bi Makhtar Diop oh, macha allah sëñ Abdou bëgg nañu ñëw yow ci ponk yu bëree bëri ci uh, wàllu ñaan waaye sëñ Abdou Lahat uh, balaa loolu dañoo bëgg ñu nga fàccee lu diggante ñaan ak lasaraar lan mo len wutale boo ko defee ñu doog dugg ci waxtaan deug deug seigne Abdou xamna ba lañu add ci biir loolu sax deug deug dañ lay wax kan moy seigne Abdou Lahad Cheikhul mm-hmm, mm-hmm. Asrar ak mm-hmm. ci ay yengom ba fi ñu agsi tey war ak jotaay kan mo ak ak seigne Modou Dieng seigne Abdou ndongal dara la kuy yengu ci dara jang ak jangale dekk fi fi Touba fi fi Touba fi ñu wax Daaru Marnaan waye nak ma ngi yengo deug deug fi ñu wax Touba bustan Touba bustan mu ngi ci route de Daara Jolof euh, ñi nga fa ak suñ daara ju mag nag di fa di fa yëngu ci jàng ak jàngale lasraar nag laaj nga ñu ci question boo xam ne euh, daañu ci sawar lool ci tontu ko mm-hmm. mooy lan mooy différence u mm-hmm. ak ñaan ak ñaan mm-hmm. différence bi bëri na bëriwut waaye am na différence ñaan ku yàlla dogal nga sell la mën a a sellal say say jëf say jaamu yàlla ak say ibaadaat yooyu mën ngaa ñaan nit ñi mën nañ la yaakaar ci ñaan nga di leen defal lu aju ci ñaan mhm. sëñ Modou mhm. lasraar nag mhm. ay mbir la yu ñuy xam ay mbir ay mbir ak mbir mbiraan ay yëf ak yëf yëfaan yoo xam ne dañ koy xam maîtriser ko door a mën a defal li ñuy wax lasraar kon lii bokk na ci différence benn yenn la ci différence yi nga xam ne moo différencé ñaan ak lasraar ñaan kon ku ne mën na ko man ma yaakaar ne ñaan ak la lasaraar benn bi la rek ñii dañuy wax la lasaraar ñii wax ñaan am na ak wuute bu baax sëñ am na wuute am na ak wuute bu baax baax sëñ Modou am na ak wuute bu baax am na ak wuute bu baax ma sha allah man day ñu bëree bëri mo dañu japp maam la lasaraar am ñoo xam sax dañu yaakaar ne baatu arab la wala ñaan eh, baatu olof am ñoo xam ne loolu lañu jàpp kay ba ñaan hmm. baatu olof la la lasaraar baatu arab la baatu arab la baatu arab la way ba léegi am na am na différence am na différence boko firi won ci wolof tay la lasaraar ay ay secret lay lay firi kon xam nga ne bokkut ak ñaan bokkuñu waaw ay secret secret yooyu nag mhm. looy lu ñëtu la mhm. def ci ay euh, tapassus door koo xam mhm. ñaan nag wax naa la ko ci ci début bi nee naa la ñaan euh, nit ku nekk mën na ko képp koo xam ne yaa ngi taxawal julli juróom di zikkar di tudd tur yàlla sa jëmm sell la nga sag lab mate ko rek mën ngaa ñaan nit mën na laa doyloo ci ñaan dékk la ay loxoom nga ñaan suñ borom faj ko nag li tax ma ne la da nga koy jàng doo koo xam lim làmboo dafa bëri dafa bëri ay ay fànn yu bëri yooyu dajale doo ko man lii ñuy wax lasraar li ñuy wax lasraar sëñ lan mel na ni ñaan gi bëri na léegi de mel na da nga gis ko xam ne ab téer la woon wala mécanicien la woon waaye da ngay jékki-jékki rek gis ko muy ñaan xëy xëy rek yëngu jamono la mm. jamono euh, mel ni mm-hmm. Mm-hmm. li may wax sànq mel mbokk nee naa ko mm-hmm. mbir yi de waaw ñu bëri dañ koy jàppee comme loo xam ne xam ma fan la comme que xam ma fan la nag naa làmb fu mu doon baax na bëri na ñoo xam ne ci suñu jamono. Mm-hmm. moo leen dugal ci ñaan. ñaan moo leen dugal ci ñaan comme que dañuy làmb xamuñu fan la bëgg nañ mu dox. Ah. comme la dégg daal ñoom maam bëgg lu dox moo tax ñu dugg ci ñaan gi. képp mm-hmm. moo ci ëpp. wala moo ci ëpp comme que xamuñu fan la. dañuy mm-hmm. làmb rek. fu mu fu mu fu rek foofa la. waaye nag. différence bii ma lay wax. fi ngay xamee ki ko doon ak ki ko doonul. mooy bu ñu àggee ci lasraar. di nga xam ne. ki koy woote woo doon na ko wala doonu ko mm. lii mooy mbir yi mooy secret yi mm-hmm. bu fekkee nag nit ki day yëngu ci yeneen doonoon waaw téer wala am bandkat wala lu mu doon mm-hmm. xëy xëy ne cëpp ci biir ñaan mm-hmm. woote ab seexu bi wala woote seexul asaar bu sekk ak ya defe naa ku mel ni sëñ Modou jang mhm. amana du ci du ci gaaw a génn. du ci gaaw a génn du ci gaaw a génn <laughs> eh, du ci gaaw a génn. macha allah sëriñ Abdoul Ahad mom ngi am seen eh, émission tay eh, waxtane xam-xam. Mhm. sëñ sodi lay xam sëriñ Abdoul Ahad Mbacke gis ngi ni ko waxe mhm. wa sëriñ Abdoul Ahad bëgg nañu xam ba xam sëriñ Abdoul Ahad mom ndax mom nima ko déggee ma maîtrise la ñaan ki xanaa ci ñaan rek la yëngu boolewu ci leneen kon. aha sëriñ Abdoul Ahad. euh nima la ko waxe ci do ci bi door. la man ndongal dara la ci daara laa juddu ci la yaru ma ngi yor sama dara di jàngale ah daara di jàngale yor daara di jàngale. Mm-hmm. li ñuy wax lasaraan nag li ma booleeg moom. Mm-hmm. mooy dafa loon loo xam ne dama dama dama dama ko koo gëstu. Mm-hmm. ba maîtriser ko. bëri na fu ma jaar. waaye nag lasraar moom ku ne mën naa ñaan de waaye man lasraar dama ko jël mu doon sama domaine li ñuy wax xilmu nujum xilmu raml nga xam ne mënoo kaa maîtriser dëgg-dëgg te mënoo xilmu nujum ah. kawaakib yi xilmul kawaakib yi mhm. yii yëpp sëñ Abdou Lahad mhm. def na ci taxasus ba maîtriser ko xilmu nu joom rek dama koy dégg moom ñaan ka ñu koy dalal ñëpp xilmu nu joom xanaa moom xilmu nu joom da ci gën a yomb xilmu nu joom nag day mel ni wax ji moo ëpp ñi ko xam maanaam ñii wax ne xam nañ ko moo ëpp ñi koy xam ah ñi wax ne xam moo ëpp ñi ko xam ñii wax ne xam nañ ko moo ëpp ñi ñi ñi ñi nga xam ne maîtriser lañ ko laal tax nga nga wax la est-ce ñoom tamit ñoom dañ koo xam ne parce que kii toog di wax ci xel mën na jóom naan boo defee léegi boo defee léegi xëy na moom am ah, nañ nga di nga ah. xel mën na jóom mhm. dama la ci wax lu ndaw ñëwal gis nga yenn saa yi nga gis nit ki muy dox mhm. jàkkaarloog suñ Moodu ne ko sëñ Moodu mhm. lii moo xew sa kër ak yow lii ak lii ak lii moo xew ci sa moo nar a xew ci sa avenir xilmul najum moo koy def ku ko maîtriser wu dëgg mënoo kaa xam. déet mais léegi gars gars yi damay gis ñu def loolu naan ay suba ay lii dana am ak lii dana dana ki diw dana def léegi dana def lii. waaw loolu yëpp mën naa nekk. nit ki tëdd di nelaw xoola dama ne. xam xëy bu xam xëy bu. ñii danañ ko def. nit ki yëngu ci wàllum sixara mooy njabar. mën naa xam xëy bu. anbiyaa ak yonent yi dañuy xam xëy bu ñi yëngu ci euh, mm-hmm. annajmaat yi mooy mm-hmm. nujoom yi mm-hmm. biddiw yi ñi nga xam ne dañuy def tanjim daal xilmu tanjim mooy daanaka xilmu nujoom daal ñiy def xilmu tanjim waaye nag dafa bari yooyu composé pour mën a def tanjim léegi nag ñooñu ñëpp mën nañoo xam xëy bu mën nañoo nett li mbir yi ëllëg li ci gën nag waaw te ëpp ci doole mooy. Mm-hmm, mm-hmm. comme comme comme mm-hmm, euh, masalan euh, euh, ñi nga xam ne dañoo dañuy jaamu yàlla jaamu ko di yàlla maanaam yeneen yi abadullah saalihin yi ñu baax ñooñu nga xam ne ñoom moom dañoo set suñu borom dong leen tax di def ñooñu dañuy xam xay bu gu wér neewoon naa la ñiy jëfandikoo sixara ak njabar te loolu jotewut ak jotewut ak nañ mu dara nujum jotewuñ dara mais gisoon est-ce que est ñooñu booy xool dafa ñooy ñu ëpp ay client dafa mel nag ci bu wér sax ci bu wér di seetlu lan ma waral loolu. bëri na bëri na lu ko mën a waral. Mm-hmm. ndax ci réew mi. Mm-hmm. day mel ni da nga xam ab communication la. Mm-hmm. xuma waaye dangay gis ci réew mi mel ni. Euh, ay nit ñoo xam ne. dañuy xëy woote loo xam ne. dalay leer na lii bokkut ak dara ci yoon wi ñu waroon a woote. nit ñi dañuy jóg topp leen jamono toll foofu bëgg-bëgg yi topp foofu. toll foofu. ci réew mii ngay gisee. Mhm. ci réew mii. Mhm. ngay gise mhm. nit ku xëy woote. aw tur wala askan wala bërëb sàngam la jógee ñu xëy topp ko lu ko waral. bëgg-bëgg yi nit am nangam la. maanaam làkkat la. du ma tudd wenn xeet làkkat la waaw la waaw. waaw day mel ni moo gën a dox sax ñu ne diw. ab ñaankat la bu maîtriser lu muy def wala diw ab azrar kat la bu maîtriser lu muy def. kon xam nga. Euh, xam nga fi ma bëgg a jëm. day mel ni kon. ñu ne diw Casamance la dëkk wala diw waaw bëgguma woon sax tudd waaw. waaw wala diw ab laakkat la nangam la nangam la daal xeet. dafa mel ne booy xool euh, nit ñi léegi dafa mel ne maam ko teg ay béjjën teg ay sagar yu xong teg ay nangam moom la a gëm ci ki nga xam ne ab dongab daara la. ci yor aw kayit weex di bind. <laughs> ci wudul dëgg sax maanaam ci loo xam ne. bu doon ay naxi kese sax loola lañ loola lañ gën a gëm. Mm. li ko waral nag jamono jamono toj. Mm. jamono toj. ba agsi ci suñu réew yi. suñu réew mi tamit gën a toj fépp. nit ñi alal lañ jublu jublu àdduna mm-hmm. kenn ci ñoom bay yéetul xel maanaam li koy may àdduna ju jag mm-hmm. ak lu mu war a am te mm-hmm. yàlla dogal na ko li nga war a am te yàlla dogal nga yàlla dogal na ko di nga ko am waaye nag da nga koy fàggoo da nga koy fàggoo da li nga wërta am te yàlla te yàlla dogalu ko mënoo fexe ba jot ci bu la neexee demal ci kuy tuur yi dereet ak laneen lu foo mën a dem doo ko am. doo ko am doo ko am ki gën a gàttu fan ci kaw suuf nag. Mhm. mooy ki nga xam ne day yóotu lu yàlla dogalut. yóotu lu yàlla dogalut loolu ki gën a fan ci kaw mhm, suuf. Mhm. mooy ki yóotu lu yàlla dogalut kalaas gi ñii nga tudd nii nga xam ne ñooy def ay xaawa kii béjjën a ki seen yooyu noonu ci lañ bokk seetlul gëstul suñ moodu waaw gëstul bu baax nga bàyyi xel di nga xam li ma la wax ñi gën a gàttu fan ci kaw suuf mooy ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo wàllum sixra nit mënu koo guddaawle guddaale aw fan léegi nga wax muy xam nga xam-xam bu ñuul léegi mooy njabar njabar waaw léegi njabar ak xam-xam bu ñuul dañoo dañoo dañoo am différence wala waaw daanaka différence bi taxu ko taxu koo bëri taxu ko ndax sixra xam-xam bu ñuul la mhm. du du du yi yee mukk mënta doon nuuraan yee léegi nag bu ñu duggee ci biir lasraar dina am dina am différence boo xam ne dañuy xaw a dañuy xaw a mhm. euh, jegee yoo ndax bu ñu nee zulmaan yu ak nuuraan yu ci biir lasraar ay xaraf rek ay xaraf. mën naa teqatle. zulmaan yu ak nuuraan yu. zulmaan yu xam naa lu garaaw la moom. waaw baat bi de rëyal lañ ko lool moom. ah waaw rëyal lañ ko lool. waaye mën naa bañ a doon nag. mën naa bañ a doon lu garaaw ni ni ni ñu koy waxee. lu garaaw la ah garaaw la it. am na lu ci garaaw maam am na ñoo xam ne ay zulmaan yu la ñuy utiliser waa ay zulmaan yu la ñuy jëfandikoo. moo tax ma ne zulmaan yu zulmaan yu xanaa lu war a garaaw la zulmaan yu daal buñ la bañu tanax. Mm. njabar la ñuy jëfandikoo lañ la bëgg a wax. Mm. réew mi nag daa am lu fi xew loo xam ne ku bëgg a jëfandikoo sa mbir tamit dox mm-hmm. te nga te nga bëgg a tuur nit ñi loo xam ne du noona mm-hmm. waxi la neen la mm-hmm. dangay jëfandikoo kàddu goo xam ne nit ñi miinuñ ko boo bëggee jëfandikoo baatum jabar nga xam ne nit ñi xam nañ ko xam li muy tekk ci réew mm-hmm. xam ne kuñ ne kuy jëfandikoo ah. njabar loo lu lu garaaw lu galaaw nga la waaw ñu jëli baatum sulmaan yu indi la ko boo ko defee yow nag nga dekk ci taraddud ak sàkk maanaam dafa mel ni boo mooy xool dafa mel ni xaw a am xaw baatu arab la su ma jóg ah, waaw dañu xaw a am complexe daal ci ci arab complexe lañ ci am waaw ah. xam nga boo ko utilisé li may faral di wax mhm. ñun mhm. doomi daara yenn saa yi ñu jug di xeex com complexe ci nasaara mhm. maanaam nasaraan yi français anglais ñu ne waruñoo am complexe ñoom te ñun fekk na ñun doomi daara liñ gën a complexe mooy arab arab waaw ci arab yi lañ gën a complexe ki ah, yaa ngi bàyyi xel li may wax dëgg la ndax dafa mel ne de bari na ñoo xam ne comme ni nga ko wax ci ndongo daara yi maanaam bu ñu doon def discours rek bala foog ñu njëkkee ay arab arab yu saf yu saf sap lañ lay dóor soo soo soo arab yu saf sap lañ lay dóor ba sa bopp bi ma ngi ma ngi ñu ñu doog a doog doog a ñëw ci ci yow ci liñ bëgg a wax te fekk na yow mi ñuy waxal ab doomi wolof nga ñoom wolof lañ ñi ñi ñi leen di dégg ñiy mm. partagé vidéo yi ay wolof lañ mm. dëgg la de au lieu que ñu wax ak ñoom ci wolof ci kal kal euh, kalaam ak wolof gi ñu mm. dégg waaye dañ koy fay wàcc jéemu wëndeel sama xel lu ne ñu jëmale ko ci arab moo tax ma naan la ngi moo tax ma naan la complexe gi du ci du ci français du ci anglais waaye ci ñun doomi daara ci ci ci ci ci ci arab lañ gën a complexe kon nag ñun ñoo war a seetaat suñu bopp mhm, mhm. ba fexe ba suñu communication ñu mhm. xool niñ koy xëy na mi ngi wàññeeku sax. macha allah ndax jamono. xaw naa soppi waaw ah, waaw ah. macha allah sëriñ Abdou Cheikhul Asrar mom lañ am sun ganté ji studio bi euh yeen nga baye xel DSTV macha allah ñu leen wax di wéy leen di abonné di and ak ñun li gëna neex nañ ci karam inshallah wa groupe DSTV ñep ñu ngi leen ziaré ci caméra bi euh soxna Maguette ñu ngi ziaré bax euh baax macha allah ñu ngi doon def ab doxam ñaxte wala ab ala ak ni ba lañ ko mëna a tudde parce que Touba mom mhm. eh, da am ay réalité bopam ndax mi la ne ndox mi wàññi ko manam xawna manki lool ci dëkk bi macha allah mhm. waaw ah, ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sàkku ndimbal bu baax baax ci kilifa yi ñu dimbali ñu ci ndax mi leen roon mi métti na lool macha allah man fi ne sama ndigg fi ne day métti si na waar lool nekk daa a kawe ak roon mi waaw <laughs> ah, macha allah ku ñu dimbali ñu sàkku ndimbal rek waaye ñoxtu wuñ euh, euh, euh, saboote woon tamit moo tax ah, ndax dëkk bi moom moom moom moom daa am ay réalité boppam mas ay taalibe kese lañ macha allah siñ abdoulahat mel na ni xuus nañ ci diggante astar ak ñaan waaye bëgg nañoo wax tamit wàllum seet mhm. ba xam sëñ moom xanaa mu seet moom waru ci am morom moom ndax li nga waxee nii. sëñ Abdou Lahad day yëngu ci wa ci wàllum seet bu baax. Mm-hmm. ndax ab ñaankat. Mm-hmm. ñaankat yi day mel ni mm-hmm. ñoom sax. nit ñi ñoom moom seet daa mel ni ñoo ko moom kon lañ bëgg a wax. <laughs> ñoom moom seet mooy mooy seen buntub teraanga waaye am ñaankat bu doyloo ci xam li ko war. bu mu jàppee boppam koo xam ne seet dong nga ko war a may li muy am seet nag. kii yëngu ci ñaan mm-hmm. kii yëngu ci lasraar mm-hmm. ki nga xam ne day def sixra mm-hmm. ñii ñëpp ku ci nekk di nga di nga def li ñuy wax seet bëri na ay baat yu ñu ko mën a tuddee kon Sëñ day yëngu ci wàllum seet wàllum seet mhm. fànn gu nekk nag dañu ko yëngu ci seet wàllum seet comme ni nga ko waxee am ñoo xam dañu wax astral am ñoo xam dañuy seet ci kurus mhm. am ñoo xam ci ndox ba ci suuf sax yaakaar naa sama ah, jumul waaw mhm. waaw léegi sëñ ci seet ci las day seet ci ram day seet ci funjaan day seet ci kurus day def tamit li ñuy wax istuxaara istuxaara istuxaar baat boobu moom xawma ko istuxaar mooy ci wolof listixaar lañ ko gën a gën a miine dañ mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. wolof baat bi niñ ko gën a miine mooy listixaar rek la ñuy wax lan micro bi jege sëñ Ablaye lañ gën a miin ci wolof kon mooy istixaara mooy baatu baatu ñun dañoo complexe li ma la waxoon sànq ñun ay doomu daara yi daanaka mënuñoo wax te dugaluñu ci arab kon listixaar dañ ci seet listixaar nag bëri na ay yoon. bëri na yoon bëri na ay yoon. Mm. waaye yonent bi sallallahu da ko daan def nit def na ko. Mm. mu saxaaral ko ko. Mm. yonent bi sallallahu alayhi da ko daan def. Mm-hmm. wane na aw yoon wit wuñ koy mm-hmm. defee wu jàppandi woo xam ne. Mm-hmm. bokkaale du ca dugg. lenn du ca dugg te boo ko defee suñu borom subhaanahu wa taala mën na la caa wan lu wér. waaye nag ni ko mbokk yu bari jàppee. ni mbokk yu bari jàppee li soxaar. doonu ko. bëri na ci mbokk yi ñoo xam ne dañoo jàpp ne li saxaar daal mhm. lu ngand la loo xam ne mhm. boo ko defee moom dañ lay wan sëñ Moodu moo xam ne <laughs> day day dox ci biir gaay rek di dox di saafant ak ñoom wala di dox di xeex ak ñoom wala di dox ñu naan ko sëñ Moodu kaay yaama dóor fii yaama waxoon lii ak yooyu demewu na demewu na demewul noona li saxaar yi gën a wér te mhm. boroom xam-xam yi ku mel na Ibn Sina boroom xam-xam bu mag la boo xam ne li mu bind ci xam-xamul la lasraar bëri na ku ñu wax baquraat ku ñu wax suquraat ñii ñëpp ay borom xam-xam la yoo xam ne ku ñu wax ba tey Abdul fata atuuxi yi ci borom xam-xam yi mujj la bokk ndax ñee ko jiitu foofu ay ay jiitoo nañ ko ay siècle kon ñii ñëpp bind nañ ci istuxaar nga ma doon laaj bind nañ ci bind nañ ci ay yoon it ay fànn yu wutee waaye yii ma lay wax ne la moo gën a jàppandi te yonent bi sallallahu alayhi saxal na ko boo ko mhm. defee amaane bokkaale ak laneen ak surk ak yooyu yëpp mhm. du ci am waaw mhm. yi nga xam ne moo gën te comme ni ma la ko waxee ni ko mbokk yi jàppee du ko du noona du noona kon ni mu ni mu war a doonee te nit ñi waroo war a yeesal xalaat yi jàppe ko noonu mooy li saxaara boo ko defee comme que dafa jege yoog nelaw ndax daanaka nit ki fi muy fi muy fi muy fi muy war a dalloo la lay waaje jàpp ba sell def ko boo ko defee da ngay ñaan suñ borom mu wan la mbir sangam mi ma soxla mhm. bu fekke bu fekke nona la mhm. na ma suñ borom wan mhm. gantax gu mel nanga kon nga xamne yow lawnu bi ngay gis melo couleur bi ngay gis rek ci ngay xamee manam mbir mi jag na wala jagut ci ay couleur dama gis ndox sangam dama nelaw man dama amun yitte sanggam, dama am yitte joo xam ne ju farafar la ju joo xam ne ju irsan la laal mhm. ma jàpp ba sell mhm. def yi ñuy def ci eh, ci ci ci listixaar mhm. tëdd dallu ñoo dal la suñu borom wan ma ndox mu bëri moo xam ne aggut ci di ma lor ma ci duggee samay tànk daal dugg na ca ba ba ma ba ma xam ne maa ngi ci ndox mi ndox mi nag du ndox mu tàng ndox ma sedd la kon loolu rek tegtal la da ngay xamne sa aajo ji jàmm la xewal la tawfiq la yusrul lépp la cheikh blad li ngay wax dafa melni dafa xaw a kawe nga xamne yow li ngay wax fini danaka manuma mënuma la déglu defee yow li ngay wax ci mam si ma jëlé exemple comme cheikh mala mujjé laaj ni rek cheikh mam lool rek maam ab émission ab émission la cheikh digënté cheikh rek ab émission la ndax li saar gi mala wax ni lenn la ci cheikh parce que ni nga koy décortiquer ni ma ak ni ak ni nga koy xaw am ñoo xam daanaka duñ àgg fu duñ xóotal parce que wax nga fi ay xawma imaam lan xawma nan nangam nangam yoo xam ñoom ay boroom borom xam-xam la dégg naa dégg naa dégg naa mbokk mu baax fan yi mhm. mi ngi ci actualité bi mhm. euh, borom xam dañ la ko dañ ko koy nangol waaye nag ku ëppal la ci xam-xam ku ëppal la ku la ci xam-xam ndax ñi waaw li tax ma ne ëppal la mhm. mooy ñim liir ba jàpp ne ay kàngam lay ba mu leen i gam-gamle ak suñuy sëriñ ah. ñun donga yi dañuy liir ñooña Mm-hmm. te jàpp nañ ne ci kanam tuuti danañ teg suñ tànk fa ñooña tegoon seen tànk mm-hmm. te ba fi mu toll nii ñun mm-hmm. da bëgguñ lu toll ni catuwe ci suñ sëriñ sii kon kooku dafa ëppal boo liiree ah, benn téerab benn téerab benn téerab ibnu sina jàpp ne ibnu sina moo fi ëpp xam-xam dëgg la ibnu sina borom xam la borom xam-xamu diine la borom xam-xamu euh, tabb la mooy faj faj médecine ndax lim mu bind ci médecine euh, arab yi euh, tubaab yi dañoo demoon ba benn jamono. Mhm. ñu dugg ci araab yi fu ñuy wax andalus. Mhm. mooy Espagne tey. Mhm. andalus ah, boo déggee boo boo déggee ñu naan diw almajiriti majorité borom xam-xam la moom itam daa am ñu ko daan askanele. almajiriti di moom fu ñuy wax Madrid la dëkk. Madrid lañ lañ soppi tur wi def ko almajiriti yi. majorité yi kon lañ soppi tur wa def ko Madrid laa bëgg wax. Ah. andalus andalus lañ soppi tur wa def ko Espagne. kon ña dëkkoon ay borom xam-xam la ñoon borom xam-xam diine la ñoon borom xam-xami fànn yu wute. yoo xam ne boo koy mm. gëstu di nga xam ne daal. Mm. xam-xam yaatu na lool. kon bu nit jógee mm. liir benn tiire benn téere boo xam ne. benn fànn lañ lañ lañ taalif ca loola rek. mooy tabbu. ci médecine xeet yooyu noonu. nga jàpp ne kii moo fi raw. njuumte commencé naa dugg. ëppalit tàmbali naa dugg kon ni ma ko waxee. kon lii mooy jafe-jafe bi. sëñ Abdou Lahat mel na ni eh, ni ma la ko waxee léegi rek liñ bëgg a waxtaan ak li am yéene wax ko lépp du xaj ci benn émission mel na ni sama caméra man mi ngay signalé ma waxtu wi mhm. mel na ni li ci des uh, bëreetu te mi ngi dem mhm. waaye sëñ Abdou Lahat dañoo bëgg ñëw ci wàllum faj wax nañu wàllum asrar mhm. mooy ñaan ak yooyu sëñ Abdou Lahat wàllum faj da da nga faral di faj faj yooyu ak yan ak yan ngay faj sëñ Abdou waaw sëñ Abdou Lahat boo boo boo seetlee xam xam naa dinañ ci defaat ay émission incha allah dana da da daañu gën a yaatal yaatal waxtaan wi. Mhm. bu ko defee def ci ay émission ndax. Mhm. benn benn benn domaine rek. Mhm. génnaguñ ko fi mu toll nii génnaguñ ko dëgg fi mu toll nii. comme que émission yuy door la. dañu dañuy dañuy laal fii laal fii. laal fii bañ xam ne. loolu la jataay bi laaj. dëgg waaye danañ ko gën a yaatal kon. Cheikh Bilard day yëngu ci. faj li ñuy wax ndoxu siti. ndoxu siti. hémorroïde. Euh, ay ballonnement xeet yooyu. feebaru der. yëpp Cheikh da ci da ci mm-hmm. da ciy yëngu. Mm-hmm. Mm-hmm. feebaru der. yii nga xam ne day joxe karaw it. xeeti produit yooyu yëpp suñu laata. ngay liggéey ah, waaw loolu moom xale dina ko soxla. yooyu si si sëqal karaw daa xew. dafa xew dafa xew comme nun nga ko waxee <laughs> dafa xew. ay produits efficaces daal yoo xam ne. waaw ah, léegi daanaka jamono ko soxla daal jamono soxla moom. yooyu yëpp suñu laata da ciy yëngu. di yëngu ci wàllum. Euh, li ñuy wax jàppandi. maanaam lo lépp loo xam ne bëgg loo xam ne bëgg nga mu jàppandi la. comme ci suñu jamono. ñu mel ne kuy lijjanti kayit. kuy kuy wuti passeport visa xeet yooyu noonu. Mm, ku bëgg a tukki yëpp waaw ku mm. pare na pour. Mm. yombal say mbir. ña nekk ca réew ma. Mm-hmm. bëgg ñëw te mënuñoo ñëw. Sëñ Sëñ Abdou Lahad pare pour jàppandil seen i mbir ñoom it. loolu di bari na ñu ñu intéressé loolu. lu wér sax. Mm-hmm. xam naa looloo tax sax ñu ñu dabaatal ko ci. waaw ci mm-hmm. jaraay bi jéem waaye ñun ñëpp Sëñ Abdou Lahad na. pour yombal seen i mbir. ku ku ku jokk ak ñun. moo xam ci jaaruwaay foofu laa bëggoon foofu laa bëggoon ñëw Sëñ Abdou Lahad parce que li nga wax lépp Ah, maam jamono laaj na ko lool ah, ñu ngi yitte woon ko surtout li nga mujjee wax muy ku ne bitim réew bëgg ay kayit am ñoo xam ne daanaka ay kayit moo tax mënaguñu ñëw ba léegi seet seen njaboot ak seen i famille allah suñu ablaat fan ah, mooy adresse a ñëw moom fan ngay a ñëw ci moom jaar waaye bitim réew bëgg a jokkoo ak moom tamit wan yoon ngay jaar jërëjëf sëñ loolu ak leeral la gu leer mm-hmm. goo xam ne dana tax ñu wax la adresse bi dëgg-dëgg suñu ablaat mi ngi mm-hmm. Touba Boustane Touba Boustane nag ak Touba mm-hmm. ci penk Touba la nekk ci penk Touba booy boo génnee Touba masalan fi ñuy mhm. wax ndindi nga koy génne kon day mel ni mooy penk ba waaw bu ñu juumul kon mhm. digganteem ak Touba 27 kilomètres la wala gën gaa bëri 30 kilomètres 30 mhm. kilomètres Touba Boustane dëkk la boo xam ne euh, ci ndigalul Sëñ Abdou Lahad lañ ko sance Cheikh Abdou Lahad xalifa xalifa Sëñ Touba la woon Boustane ah, dëgaloon ko rakkam ju ñuy wax Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir moomu kon moom la ñuy askan Boustane ba tey jii nag ay njabootam ña nga fa ku ñuy wax Mm-hmm. sëriñ Cheikh Abdoul Mbacke mm-hmm. moom suñ moodum suñu Abdou Khadir moo fa nekk mm-hmm. di di doomi suñ moodum suñu Abdou Khadir ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare moom kilifa bu baax la a nekkal bu neex a dëkkal euh, chef de village bi moom itam ñi ngi koy nuyu bu baax di ko di ko ñu baax lañ ñu neex a dëkkal ku ñu wax sëñ Mor Ndiaye Mor mooy chef de village ba ñu ngi koy nuyu di nuyu kilifa yañ fa bàyyi yëpp ñoom ñu neex a dëkkal lañ wax dëgg yàlla soutenir nañ ñu taxawuñu ci lépp ci daara ji ñu ngi gis bu baax nit ñuy jàppee ci daara ji ñu jar ñu jar a bàyyi xel ñu jar a bàyyi xel kon adresse bi mooy Touba Boustane Touba Boustane diggante ak Touba 27 gën gaa bëri mm-hmm. gën gaa bëri 30 kilomètres 30 mm-hmm. kilomètres ci penku Touba mm-hmm. kon Touba Boustane adresse bu leer bi mi ngi noonu si ñëpp laat fa lay yëngu day mel ni 24 jours 24 foofa lay yeewoo lu mën a xew bu ma bu ma bu yitte yu ma mën a nekk dinaa gont fanaani fa fu ma mën a fu ma mën a fanaan ci biir réew mi mm. lu mën a xew dinaa gont fanaan nitu baabu saan laat kon du faral dem Dakar wala Mbour nga xam ne ah, ah, ñaankat yi bari nañ fa dëkk dëkk yooyu yëpp nag mm-hmm. dañ faa basé wut dañ faa basé wut defuñu fa suñ baas waaye yëpp dañ dañ yittewoo dañ yittewoo ñu ñu defa dem mm-hmm. waaw ñu ñu ñu defa dem di seeti mbokk yi mm-hmm, comme comme loolu nga doon laajit dinañ si yokk lenn mbiri cangat yi am nañu ko doon laaj dañ koy dañ koy faral laaj cangat càngat yi waaw cangat yi ñetti fan yeeg juróom-ñaari fan yeeg 40 41 jours yi yooyu yëpp dañ koy def ay xalwaat dañ koy def ñu ko soxla day mel ne am na mbokk yoo xam ne dañuy soxla yenn saa yi ku leen ku leen defal ay xalwa waaye nag ci fi ñu dëkk lañ koy defee demuñu fekki kenn di ko defal xalwa fi ñu dëkk lañ koy defee kon yow ku bëggoon comme sànga duñ ko wax 41 jours yi kon lépp kon sa kër la koy passé ba sama kër la ma koy passé waaye nag bu fekkee sangat yooyu nga xam ne dafa jéggi ñetti fan dañ lay jox ay yoon woo xam ne da nga koy da nga koy awee ba mën a dem bërëb ba nga nekk defe ko fa defe ko waaw defe ko fa ndax dafa am loo xam ne. Mhm. day gàllankoor ab liggéey nit nag. Ah, nit nag mënoo bëgg. Mhm. mënoo bëgg. Mhm. ab liggéeyam jag. ba pare ngay gàllankoor yow. gàllankoor ab liggéeyam ab liggéeyam mm, kon da nga koy teg ci yoon wu leer woo xam ne mm, mm, dina dina dina mën a dina mën a euh, jàppandil ab liggéeyam mu boole kook li li li li li mu doon sàkku si oh, macha allah jërëjëf suñu Abdou Lahat mel na li ñu bëgg a wax lépp li ma ko waxee léegi xaju ci benn jotaay bi at ah, tamit sama kéemaan boobu léegi may signalé euh, macha allah li ñu amul ci waxtu sax jeex na uh-huh. ba tegal ay minutes uh-huh. macha allah waaye suñu Abdou Lahat uh-huh. oh, wàllu wàllum actualité xam naa ñu ñu laal ci tuuti rek parce que mel na dëkk fi mu nii fi mu toll nii mu joxe wàllu actualité waaye suñu Abdou Lahat wàllum yooyu wala wàllum football mm-hmm. sëñ Abdou ndax ñooñu dana am ay aajo yoo xam ne koy aajo woo ci sëriñ si ndax ñoom bu ñëwee tamit uh, mën ngaa jëflante ak ñoom sëñ Abdou Lahat day jëflante ak ñëpp wax naa la ko ci biir émission bi mm-hmm. sëñ Abdou noppi nag ngir jëflante ak képp ku aajo daal bu ñëwee képp ku am aajo mm-hmm. sëñ Abdou Lahat dafa laa ubbil ay buntam ñun bokkuñu ci sëriñ si nga xam ne dañu naan ndax mënoo mënoo mënoo mënoo woote yàlla ba pare di am ñooy bedd yàlla ñëpp la fi nekkal. waaw dëgg la yàlla ñëpp la fi ñëpp la fi nekkal ku nekk da nga am sa yitte. Mm-hmm. yitte ju nekk nag. Mm-hmm. nit da koy am. Mm-hmm. yaakaar ne bërëb sàngam lay fajoo mu jug dem fa. suñ borom mën na mën naa mën naa mën naa mën naa dogal mu fajoo fa. kon kuy yëngu ci wàllum làmb. wala football. politique ñëpp daal ñooñu nga xam ne dañuy dañuy yittewoo ndax réew mi ñoo ko bokk ñoo ko bokk xam na niñ demee. dëgg la xam na niñ demee. dëgg la yii ñuy soxlawoo ci wàllum ñaan ak wàllum. kayfiyaatil asraar ak xeet yooyu yëpp sëñ Abdou Lahad da ci da ciy yëngu xilmu ramlu dañ koo fàtte woon waaye dama ciy yëngu bu baax xilmul kaffu bi nga xam ne mbokk yu bëri gis naa ñu woote ko te day mel ni booy xool actualité bi dëgg-dëgg day mel ni dese nañ ko maîtriser sëñ Abdou Lahad ku dikk mu wax la ci lu leer teg la ci yoon wu leer nañ xilmul kaff te mooy seet ci loxo moom la ñuy wax xelmul kaf. xelmul kaf waaw. Mm, mm. sëñ Abdou da da day yëngu ci yooyu. ci ci yooyu. <laughs> ndeysaan kon euh, sëñ Modou. Mm-hmm. loolu loolu moo doonoon kàddu yi. macha allah jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Seykhul Asrar yi ngi doon seetaan yaakaar naa ne di ngeen xam-xam parce que ni mu ko waxee ndax euh, euh, ci question bi njëkk bi rek afaan ci génn yaakaar naa ne foofu def nañ fi temps bu bari. Uh-huh. kon kon kon kon xam-xam daal du ay pexe. waaw macha allah ni ko décortiqué am am na solo lool macha allah sëñ Abdoul Ahad mm-hmm. ah, ko defee da ngay daal di def say kàddu yi kàddu yu mujj ci émission bi fàttali adresse bi mhm. waaye surtout numéro téléphone yi tamit ñu ñu ñu fàttali ko mhm. ngir ku bëgg a euh, jëflante ak sëñ Abdou Lahad mhm. waaw sëñ Modou jërëjëf wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jégalu bu baax di jégalu sa caméraman yi jataay bi yàggaay geeg yu demee noonu macha allah ay xam-xam waaye xam-xam ma ko waral xam-xam ma ko waral nit ñi dañoo war a xam bu ñu demee ci émission yi ci kanam dina gën a leer nit ñi dañoo war a xam bëri na xam loo xam ne dañ koo sama benn ñaan ko ñi ñi ñi ñi maam ñi am maam ñi mën a ñaan bu ñëwnu ñi mënta ñaan ñooy ñaan di lor nit ñi ñooy ñaan di lor nit ñi te loolu hmm. dafa war dafa war a deñ hmm. waaw kon bu boobaa si ñëpp laat mi ngi hmm. mi ngi Touba Boustane mm, mm. Touba Boustane mm. waxtu wu nekk foofu lay foofu lay nekk bu amee yitte nag ñu far dina génn doxi ko mm-hmm. waaye lu mën a xew bu yàlla dee def jàmm rek mm-hmm. Touba Boustane lay fanaan lay fanaan jiwaat Touba Boustane nag wax naa la ko nee naa la guddi fii may wax ak bu ma paree guddi guddi Boustane Boustane incha allah incha allah kon sëñ Abdoulaye Touba Boustane mooy base bi mm-hmm. ma nga fa ca donga ya donga ya nag suñ Touba ñu booleeg ñoom ñu ne ñu bëgg a def ci ñoom xam a def ci ñoom alxuraan macha allah adresse bi foofu la Euh, ñaar fukki kilomètre ak juróom-ñaar. Uh-huh. gën gaa bëri fanweeri kilomètre. Uh-huh. numéro téléphone yi ku bëgg a jokkoo ak ñun. Uh-huh. da ngay jaar ci suñu numéro suñu numéro téléphone boo ñu woowee nag ñun ngay jot ci suñ jëmmi bopp. jox buñ ko kenn muy jafeek yëpp ku ñu woo ñun ngay jot. kon amoo secrétaire. déedéet yooyu yooyu yëpp amu ci. xay na nag eh, liggéey bi waaw bu demee ba laaj ko daañu ko def waaw daañu ko def waaye nag fi mu toll nii ku ñu woo mhm. ñun ngay jot suñu bopp numéro téléphone bi 77 881 17 30 881 17 30 beneen bu dee bu dee bu dee ci tigo bi mhm. dañ lay jox 76 471 90 91 loolu mooy beneen numéro bi 471 90 91 loolu mooy numéro yi suñ moodu kon ku ku bëgg a jokkoo ak ñun boo ci jaaree rek mhm. daa nga jokkoo ak ñun ca gën gaa jàppandi incha <laughs> allah incha Eh, eh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah sëriñ Abdou Lahad Mbacké Seyxul Asrar nek ci Touba Boustan eh, macha allah ni ko waxee rek tubaarikal ku bëgg jokk ak mom man nga dem ba Boustan wala tamit bu dem gi wut bo jokk mom ci numéro yi inshallah rabbi dana la tek ci yoon gi melni ni jëflante macha allah waaye ñi nga xam ñoy japp la ci émission bi duñ leen fàtte ñu ngi leen di siyaare ministre Touba Darou maran wa kër Serigne Cheikh aw Balla Cheikh Abadi mustafa Aw bu jot gi jafet ku jaar ci suñ modou moom di nga am adresse inshallah inshallah ku jaar ci ah, ku jaar ci ku ñew ci ku ñëw ci DSTV da nga da nga am numéro yi macha allah dana jàppandi ah, kon macha allah jërëjëf suñu abdoulahat macha allah kon ñoo ngi sant waa ministre euh, Touba Darou Marnaan waa kër Serigne Cheikh Aw Balla Cheikh Rabadi Moustapha Aw nekk fii ci kër Baye Laat defar ay sambra kus yoo xam ne macha allah yu amam solo di ay lal yu rafet tubaarkàlla euh, yoo xam ne ku dem ci moom rek incha allah rabbi euh, dana la defal loo xam ni macha allah moom moom la muy liggéey rafet lool moom ministre Touba Darou Marnaan waa kër Serigne Cheikh Aw bala Sénégal euh, ba Moustapha Aw macha allah numéro bi moom ngeen gis noonu suuf écran bi. Euh, tubaarkalla waaye euh, restaurant fast food débiteur complexe Lamp Fall ne fii ci Touba Tali Bes yoon nga xam ne mu jëm si xaw ga incha allah Sénégal ba Mouhamed moom xam nga ko ab faaleen nag bu yooyee restaurant xam nga ne boo ñëwee moom ah teraanga allah teraanga dana dana dana ndax Fall moo tax ñoom it dañuy jàmbaare waaye nekk ak ay xale yoo xam ne ñoom itam wala ay employé am di ñu baax lool te yaatu macha allah sëriñ maam Thierno ñoo ngi koy siyaar baax waaye Mbaye Mourou ak xale yi mu feggul yëpp rek waye soxna yi ñoom tam nga xam ñoy uh, yor kaaru suba <laughs> bi tubaarikàlla ñom tam di ay xalé yu yor macha allah mm-hmm. uh, waaye yu mëna togg lool macha allah ko restaurant fa suuf député complexe Lamp Fall ñoo mm-hmm. ñuy gunge sa yu ne mm-hmm. uh, macha allah ak ministère wa kër Serigne Cheikh Awa ñi ngi sant bu baaxa baax ci cadeau gu Serigne Modou Dieng ci caméra bi Makhtar Diop oh, macha allah ñu ngi sant ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh anina ba iblisa fi bahri ma yumba DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bëss ko sa notification émission loolu mooy tax vidéo bu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf ani naba fi bahri ma yomba